mbokku jullit yi mbokku taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ci ndigalu cheikh sidil moxtaar mbàkke xalif général des mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér sëriñ abdoulahan mbàkke ibnu sëriñ cheikh abi mbàkke ak mboolam kuréelu xasida yi ñoo am mbégte di yëgle bés bu mag bésu ngëneel bi di bésu xasida sëriñ tuuba yi ñu amal at mu jot ci juma masalikul jinaan ren di juróom-ñeenteelu édition bi dëppoo ak samedi fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars 2017 li ko dalee 9 heures ci suba ba 19 heures di timis sëriñ Abdoul Ahad Mbacke ibnu sëriñ Cheikh Abi Mbacke ànd ak mbooleem kuréelu xasida yi di ko yëgal ak di ci sàkku teewaayu mboolem jabootug sëriñ Touba gi mboolem cheikh yu yoonu murit yi mbooleem taalibe yi rawatina kuréelu xasida yi duruskat yi ak rajaskat yi juróom-ñeenteelu édition bés bi ñu jagleel xasida sëriñ Touba yi fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars 2017 ci jumaa masalikul jinaan ci kolobaan fii ci ndakaaru ñu ciy waxtaane nag dund ku tedd ki njàngaleem ak ay xasidaam sëriñ abdoulahad mbàkke ibn sëriñ cheikh abi mbàkke ak kuréelu xasida yi di ñaan ci yàlla ci barke sëriñ tuuba ak xasida yi képp ku teewee bés bi na doon sa pajub aajo tey ak ëllëg muy juróom-ñeenteelu édition journée xasida Serigne Touba yi fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars 2017 ci jumaa Masalikul Jinaan ci Kolobaan Dakar ñuy àndandoo كان الخادم الرسول